dikkati naa tawuk aljuma ji ci ndakaaru jël joob sàngomaaren day ndekete njaw des na ci xaw mbin ba tey tribune yéen kaay ne ma ndekete taw bi defuk benn faatu de déedéet ñett nit ci doomu aadama ñàkk nañ seenu bakkan ci ndakaaru jël joob gii aljuma ji ñu génn te lépp nag ma ngi daal di tukkee ci taw gi nga xam ne daal dinay faagaagal nit ñi vox populi ne ma gannaaw Alexandre Gomis ba nga xam ne ca tunnel bu corniche bi la daal di ñàkk bakkanam ñaar ci doomu aadama daal dinañuy faat ci faatu yoo xam ne doy na waar lool benn xale bu góor boo xam ne fukki at juróom ñaar la am doon kuy gàddu bagage ca marché Castor daal dinay ñàkk bakkanam moom it canal ba nga xam ne moo nekk ca front am na keneen koo xam ne courant da ko daal di maas ba mu ñàkk bakkanam yéen kaay bi ne ma ministère bi dénk wàllu ndox bi ak assainissement daal dinay xam ne na nguuru Sénégal daal dinay jëli mesure ci lii waaye tam ministère bi dénk wàllu infrastructure xam le na ni nag ñu def barrière yoo xam ne mooy te tunnel bu corniche bi sud ko di yéene lii lépp nag yorinuk làmbatu dong moonu ko daal di jural de taw bi bari na lool ci ndakaaru waaye mal gouvernance taf yëngal làmbatu ci waxtu woo xam ne nag maam ji dafa yorug ndoxam fu ko neex sotti ak nu ko neexee waaye tam yorin gu bon goo xam ne ñun ñu ko daal di jiitee ba mbënd mi sax daal di cay feeñ tax na nag ndakaaru mi ngi dund maar day taaleeg jaxannama amat sumaare bu kan daal di xam le ni plan décennal bi nga xam ne jagleel nañ ko wàllu ndox mi daraa ci baaxul moom professeur Ngouda Mboup ci yéenekaay bi ne boobu plan décennal ci boppam évolué ko saytu ko topp doxin gaaj ñàkk doxin ga lan lan ca def ak lan lan ca bàyyi lii moo manqué réewum Sénégal moo tax jaxannama ak tam jafe-jafey ndox duñu gaaw a tàqalikoo ak moom Dakar Times ne daaw rek daaw gi yàggul ñoom député yi daal dañuy def ab rapport boo xam ne dañ ko jagleel na xeex gi ñu war a xeex wàllum inondation jagleel nañ jiit ak réew mi rapport boo xam ne bu ca sukkandikoo mën na xool fan la faa yi nekk ak jafe-jafe yi man ca wutug saafara ngir tàqale askan weeg mënd député yi nee nañu woon président Macky Sall wàllug lotissement bokk na ci de am na ci quartier yoo xam ne it ciblé woon nañ leen jàpp ne yooyu le quartier war nañ leen yeesalaat méngale leen ak jamono Dakar Times Cinéma waxoon nañ ñoom député yi ñu xoolaat bu baax a baax rappeler autorisation lotissement yi waaye itam daal di contrôler bu baax baax lotissement non autorisé yi ñoom député yi nee woon na yaatal gi ni yaatal yenn ciy quartier lu ci mel ni Kër Massar ci anam woo xam ni jaarul yoon bokk na ci yokku mbënd mi kano yi nga xam ni digle woon nañ ko diggante Tëngéej ak jam ñaaño te defuñu ko it yokku na seen i guuta yéene kaay bi ne ñoom député yi xamaloon nañ jitum réew mi ne ko bari na ci gox yoo xam ne dañ leen daal di dër te dër googee àndut ak yoon ndax itam foofee dañoo sensible yu ci mel ni zone des yoo xam ne jaarul yoon ñoom député yi sax yéen kaay bi ne ma xamaloon nan nag président de la république saafara gi lan la waaye itam ñi ko jaarale woon ci projet de loi yoo xam ne bu ñu nangu woon wote ko ci réewum Sénégal mënoon naa tax anam yi ni tabaxee du andi jiixi jaaxa ci réew mi tribune yéen kaay ne ma waxal ci politique ak fukk ak ñeenteel législature bi nga xam ne mi ngi war a am ci réewum Sénégal ñi ngi xeex dëgg-dëgg na ngir kan mooy contrôler assemblée nationale moom président Macky Sall day ab yetam rek la yor ko nag këddoo l'opposition bi bi daal di ne ma président Macky xëtam bu njëkk moom moo di intercoalition bii di yeewi askan wi ak wàllu mu fexe nag ba daal di koy tàbbal géej fa yàllaaxu moom président Macky Sall day daal di tas tasar boobu la coalition la daal di bëgg yéeni kaay bi samp laaj mbaadu dañu jëm nag ci bennoo goo xam ne wàllu Sénégal daf cay daal di bokk vox populi ne ma en tout cas moom Cheikh Omar Anne ma ngay xam le ni intercoalition yeewi wàllu day daal dinay tas tasar ba nuppi ndax nag élection yii boo bëggee dégg-dëgg APR parti démocratique sénégalais ak ñi nga xam ni wote wunu ñoo ca amuk ndam l'observateur ne ma parti démocratique démocratique day gise wunu ne ñoom nag retrouvaille famille libérale bi daal nañ koy dàq mu tàbbi géej moom Nafi Diallo mi nga xam ne mooy secrétaire national bi ñu dénk wàllu communication parti démocratique sénégalais ne kenn nag du jaar ci parti démocratique sénégalais ngir xaajale l'opposition bi réew mi quotidien ne boobu day président Macky Sall ma ngay xaar tabbinu premier ministre waaye tam soppi gi nga xam ni war na ko soppi maa gi moom président Macky Sall yéeni kaay bi ne ma dogalub conseil constitutionnel kese la président Macky Sall di xaar ngir mën a soppi gouvernement falu premier ministre week-end bii ñu génn réew mi quotidien ne président Macky Sall day daal dina ciy dajeek ay acteurs yu mag ci opposition bi gouvernement goo xam ni nag dañ koy daal di yaatal ba ñëpp xacc boo moytul day ca la ñu jëm nguuda mbuub ci bés bi le jour mel ni kuraan maan moo war sax de ndax nag moom président Macky Sall war na woo Khalifa Babacar Sall Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko Walf Quotidien mel ni kuraan maan ay coup transhumé ay coup transhumé boo demee day man nga jàpp ne faatu nga ci wàllu politique faya laaxu le quotidien le quotidien ne booba Papa Diop day liggéey bi yëpp ci loxoom la daal di nag yéen kaay bi ne ma am na joob waaye yeewi askan bi ñu ngi koy dingital assemblée nationale moom Papa Diop waa Benno Bokk Yaakaar di ko xëccee boor bu ne booba tribune yéen kaay ma ngi may xamal ne moom Charles Émile Abdou Ciss day daal dinay bàyyi Benno Bokk Yaakaar Madiambal Diagne ci altineem ci le quotidien le quotidien di xam leen nag lan mooy ay chance président Macky ngir jëm 2024 ndax nag ak lu wax ji bari bari moom président Macky bi yéen de ndax bilan ndax nag baat dootu am ci biir këram Mamadou Gueye maire bu jëda caare kaw ci turbine yéen kaay xam le ni loo ci manti dégg ndaw yi faaw ñu xam ne moom président Macky day mooy président bi gën ci yéen ndax nag moo leen di tàggat moom président Macky Sall bu mu jox leen ay projet financé leen ci bi nag Mamadou ne 73000 personnes moom président Macky Sall na leen te ba ñu leen tàggatee ba noppi teg na dara seen loxo l'observateur ne waaye saa si tembe mi ngi dund président Macky Sall ci Sénégal goo xam ne nii daanaka dara dafa àndut ak moom moom président Macky Sall situation politique bu réewum Sénégal day doxul ci wetam waaye tam social réewum Sénégal ni muy doxee saa si tembe yaramu màggat la foo lamb day metti njëkk yi cher nan dund Sénégal daanaka moog dund jaxaan na ma méngoo nañu l'observateur ne lii nag wax ko ak ñàkk koo waxay am jaxaan na ma la ngir président Macky Sall te baaxul ci moom pour muy leer libération ne doomu Turquie bi nga xam ne Sénégal lañ ko ngay ñaan wàllu ndax xam le na ni nag bokk na ci ñu sowe Yeewi Salem te loolee la gouvernement turki bi di bañ ña nekkoon Yeewi Salem ñëpp daw nañ bitim réew moom mu wóolu woon Sénégal jël fi ay nit tey jii ñu bëgg ko jéppal réewam turki ba fa demee tëj wala torture la fay dund yéene kaay bi ne ma boobu day ci technopole bu ndakaaru am nag sëriñ boo xam ne dafa ci dafa pës moom libération ne ma ab xale bu góor bu am ñaar fukki at ak ñeent boo xam ne xelam matul lan doon faj yéene kaay bi ne ma ay cangat lañ ko doon defal de moom xale bu góor bi ngir nag rabak yi ko tudd daal di ko woon tey ndax yëngu yëngu gi mu yëngu woon tax na ba ñu yoroon ay bant di ko ko dóor ñoom ña xam ne ñoo àndoon ak sëriñ ba ak sëriñ ba ba mu ñàkkee ba kanam la daw bàyyi ko fa ña leen di wër saa si tribune sport ne ma bul dem ñëwal ci man mba xamal la ni ni ki day Balla Gaye 2 daal dinay daan waaye métti woon na lool ci côté Gris Bordeaux bés bi le jour ne ma gaynde géejawaay gi day daal dinay relancer carrière waaye ci ñeent fukkeet ak ñett moom mi wuutu woon message bu fort Eumeu seen ak booy Niang sunu làmb ne loo ci manti git gaynde gay yeewu waat na muy Balla gay waaye daal dinay sóob boo doo ci pax boo xam ni maar day taali ak lu mënti am mbokk yi nanu yendoog jàmm te di ñaan jàmm